mbébétu ndongo yi nag mooy jël gaal daal di wutali fi nga xamante ne mooy Espagne ñu tuddee ko nag émigration irrégulière mu mel nii nag xale yi si seen voyage bi nga xamante ne tàmbali nañ ko jël oto yi nag di wutali fële fi nga xamante ne foofu la ñuy jëlee départ nag brigade gendarmerie bu Fimela nag daal di leen teg loxo. dans la nuit du 6 au 7 août 2022. ci nag guddik juróom benni fan jàpp juróom ñaari fan euh, ci weeru ut bi nga xam ne ni ci lañ nekk euh, ci ab patrouille bu amoon ci axe Samba Dia Fimela Euh, ci nag le élément wu brigade yi gendarmerie daal di rek arrêté ñaari oto yoo xam ne transport en comme la ñu fekk ci nag lu toll ci juróom-ñaari euh, fukk ak juróomi nit yoo xam ne ni rek dañu bëggoon a jël géej gi maanaam daal ñuy wax émigration irrégulière. sont en cours les organisateurs sont activement recherchés. am na beneen groupe boo xamante ne tamit war a jógee ca Diamniadio nar leen fekk ji foofu ngir ñu jëlandoor départ. waaye nag ñi nga xamante ne ñooy élément gendarmerie brigade de proximité bu Nianing nag ñoom tamit teg nañ leen loxo. élément brigade proximité de Nianing di def patrouille dal si ñaari kaaru Ndiaga Ndiaye yu def juróom benn fukki net ak juróom ñett ñu doon dem Fatick pour dem jël gaal gi dem Espagne donc ñi mi ngi def ay doomu réew mi ak ñu nga xamante ni ñu ngi dëkk si sous région bi enquête bi nag ñu ngi koy wëyal di ci jokkoo compagnie Fatick. pour jàpp nga xam ni ñoo organiser voyage bi. lu toll téeméer ak ñeent fukk ak ñett daanaka ci ay candidats immigration irrégulière ñoom lañ teg loxo boo xoolee ci ñooñu nag am na lu toll juróom fukk ak juróom-ñaar daanaka ay nationalité étrangère lañu. lii nag boo gisee mu am nag gendarmerie daal di teg benn dispositif de veille ak de surveillance ki ko tëral mooy haut commandant de la gendarmerie nationale directeur de la justice militaire. moom nag mbébétam mooy fexe ba xeex lépp loo xamante ne dafa jëm ci criminalité trafic de drogue immigration irrégulière ak yeneen ak yeneen